waaw alhamdulilah rabil aalamiina. Hmm. Euh, président Khalifa Ababacar Sall ku ne xam na ne mu miin yoonu politique la. Hmm. te ku ne xam na ne parrainage warul nekk loo xam ne dafa jafe pour que le président Khalifa Ababacar Sall mën ko am fii ci réew mi. Hmm. ndax koo xamante ne occupé na fi occupé na fi ay fonctions yu bari nekk fi ministre nekk fi député euh, nekk représenté fi lu nekk au niveau international. ak ci biir dëkk bi yëpp. liggéey fi lu baax nekkoon maire de Dakar gis ni mu liggéey ci biir réew mi donc kooku parrainage warul nekk problème pour mu am ko. dafa fekk na rek léegi politique dafa changé parce que galgal yi moo xaw a bari ba tax na parrainage yi ñu indi yépp pour que ñenn ñi nga xamante ne bëgg nañ leen téye moo tax ñu indi système mu parrainage te tamit euh, boo xoolee ba xool aussi tamit benn instant tamit parrainage bi baax na. parce que tamit réew dañ koy segg mm-hmm. nekkul n'importe kii moo war a ñëw ne moom mooy laaj baatu askan bi te nekkul n'importe qui tam la ñu war a jël teg ko ci bopp réew mi parce que président aussi du ay caaxaan mm-hmm. parce que nombre de parrainage boo xamante ne mënoo ko collecté donc yow ça ça veut dire que yow amoo sympathie sympathie wu euh, population yi mm-hmm. vraiment moo tax nag léegi il faut que yu mel noonu tam ñu koy segg parce que tam réew tam vraiment suñu réew mi ko dénk ñoo xamante ne ñu responsable lañu euh, mel ni le président Khalifa Ababacar xam réew la nekk homme d'état kooku moom yaakaar naa ne bés bu ñu ko dénkee réew mi Sénégal dina changer ci lu bari bari parce que ku xam état la te yàgg na ci lool waaw dañu def euh, un thème benn premier thème bi mooy euh, Khalifa Sall les chances ces chances sans le Yewwi Askan Wi bu àndul ak Yewwi lan lañ ko mën a nattee waaw boo xoolee charte Yewwi Askan Wi bi ñu koy tënk dañu newoon dañuy ànd élection locale ànd élection législative mhm. léegi nag bu ñu demee ba nga xamante ne dem nañ élection ñu ngi dem élection présidentielle kenn ku nekk da ngay demal sa bopp. parce que mm-hmm. loolu moo doon charte yi. donc ñun xamoon nañ ne Yewwi bu ñu ñëwee ba ci élection présidentielle yi du mën a ànd ñun ñëpp. parce que mm-hmm. déjà lii wane na ko. Mm-hmm. ñëpp bëgg a nekk candidat. te vraiment loolu ça ne fait pas l'affaire. li gënoon nag mooy ñu def benn bloc. bu ñu defoon benn bloc kon premier tour ñu jëlee fi ñi fi nekk. te muy dëgg waaw. mais il faut opposition bi jéem a nekk benn ñu suudewu ñu ànd. bu ko defee ñu mën li nga li nga xamante ne bëgg nañ ko ci réew mi ñu mën koo am. kon daal jàpp ngeen ne ni ni li waa Yewwi Askan Wi demee candidature yu bëri dina dina dina affaiblir li nga xam ne moo di Yewwi Askan Wi. Euh, bon mën na affaiblir parce que bu ñu bu ñu retrouvé woon par exemple si toutefois. si mhm. toutefois c'est une hypothèse mhm. ba xam euh, dem nañ deuxième tour est-ce que du ñu dajaloo waat. si am naa ci yaakaar. Mhm. parce que ñu dajaloo mooy avantage yu ñëpp. parce que bu ñu dajaloowul rek kon li fi nekk moo fiy toogaat. te bu fekkente ne ñoom dañ bi fi nekk bëgguñu ko. donc il faut ñu booloo. Mhm. parce que li ñu wax mooy li ñu waxoon mooy deuxième tour premier tour ki génn ak euh, ki nga xamante ne moom moo génn ci état bi xamaguñu kan exactement. Mhm. parce que ñoom Amadou Ba mooy seen mooy seen kii soit Amadou Ba bu génne. Mhm. keneen ku bokk ci yeewi askan bi génn. ñu war a dem deuxième tour dañuy jàppale ki nga xamante ne moom moo génn ci yeeyu askan bi loolu la ñu waxante woon te man gëm naa ne bu ñu ci tolloo il faut ñu def ko parce moom mooy li gën ci ñëpp ok